Euh, nee naa la dañu ciy def li nga xamante ni si moo di ay waxtaan yu ama am solo ba tax nag euh, tey ñu fas yéene duggaat ci kër yi duggaat ci néegu sëy yi waxtaane fa lépp loo xamante ni si daal luy dëj la te waru fa am ñu daal di ko fiy génne ah bi euh, ginnaaw nag bi ñu jàllee ci jeeg ji ni ñu doon ni ñuy sëyee ja jóge nañ fa demaat ci ñi nga xamante ni si ñoo di goro yi waaye bi ñu fa jógee jàll nañ ci ñi nga xamante ni si nag ñoom ñooy suñuy borom kër wax ak ñoom ne si ñoom ñoo di euh, njëkke yi ndax nag euh, bu ñu waxee njëkke moom mooy bàjjen te bàjjen moom mooy baay mu war a am benn taxawaay boo xamante ni si da koy war a def euh, ci li nga xamante ni si moo di kër càmmiñam waaye dañoo nemmeeku nag ne léegi jéeg ju bëri ñu ngi jooy jéeg ju bëri ñu ngi ñaxtu loo xamante ni si nag ay naqar la wala ay jafe-jafe ci seeni sëy Euh, te kenn yóbbeewu leen ko lu dul njëkkee yi ñuy ñuy ñuy ñu fas yéene waxtaan ak tey ba tax nag nee naa ko tey euh, dañuy jubal ci ñi nga xamante ni si ñoom ñoo di njëkkee yi fas yéene wax ak ñoom. ndax nag jafe-jafe bi nga xamante ni mooy am ñoom ak seen diggante ak seeni jabaru freer yi dafay faral di tarde fois ba muy jur li nga xamante ni si moom moo di euh, euh, tas gi ñu doon waxtaane yëkkati woon ko fi doon ko doon ko waxtaane ba tax na rek ñuy fas yéene wax ne njëkkee nan la war a taxawee ci biir kër euh, càmmiñam Euh, ban comportement la wala la war a euh, joxe euh, ci biir càmmiñam ci biir kër càmmiñam ndax nag bu fekkee da nga di njëkkee bokk ak sa jëkkër bokk ak sa frère mu takki jabar ak fu mu ko munti takkee indi ko ci biir kër gi ngir mu sëyal ko yow miy njëkkee mu fay fekk yow da nga kaa war a dalal yow mii nga xamante ni si njëkke nga da nga war a taxaw taxawaay bu baax boo xamante ni si jabar jooju su fekkoon ne dafa safaanu sax ñëw yow ci sa baax ak ci sa jub yow mii njëkke mun nga koo dindi tegaat ko ci yoon te xam nga nag eh, li ñuy wax rek naan nit matul ndax yow mii di njëkkee des fois nga sëy foo xamante ni si su fekkee ña ngay fekk ji ko eh, comprendre wuñ la wala jàppee wuñ la sa jikko yow doo fa yàgg kon nag doomu jàmbur bu ñu ko takkee indi ko ci biir kër nekkul ne takk ba ko sa càmmiñ takk dafa ñàkk lu mu lekk kër baayam wala dafa ñàkk lu mu lekk kër ndeyam wala dafa amul lenn moo tax muy ñëw di sëy si déedéet bu ñu ko jàppee noonu dadi kay euh, yàlla moo digle sëy te it mu war a am loo xam te ne jigéen boobu ñu indi ci biir kër da koy war a mën a jëriñ sa jëriñ sa sa càmmiñ te yow am na foo xam te ne si mënoo ko jëriñ euh, sa càmmiñ kon kooku su ñëwee da nga war a dalal su ñëwee da nga kaa war a uuf ndax lan ndax sa ki nga xamante ni moom nga bokkal muy sa muy sa muy sa càmmiñ ndax nag euh, des fois nit du takk jabaram indi ko bëgg ko nga bëgg ko xeer ñu ñantal euh, di ko toroxal di ko def yenn yoo xamante ni si waruloo koo def soo jàppee ni daa neex jëkkëram ndax nga sa bopp soo jàppee ni li ngay def noonu mën na indi benn ritax ritax sa digganteeg euh, sa càmmiñ ba tax mu bàyyi jabaram da ngay nax sa bopp te nag kër yi bëri na lu koy yàq lépp mooy ñàkk waxtaan bokk na ci li nga xamante ni si moom mooy yàq li nga xam ne moo di kër yi ndax nag boo xoolee yow miy jigéen yow njëkke nga waaye ñaan nga yàlla dem sëyi wala njëkke lu nekk ci sëyam ñaan yàlla ña nga fay fekk ñu accepté la ñaan yàlla ñoom ñu bëgg la waaye su fekkee doomu jàmbur dafa jóge fële sa càmmiñ taxu ko indi ko moom miy ndaw si mu bàyyi góor yu bëri romb kër yu bëri ñëw taamu sa càmmiñ ne moom lay sëyal mu ñëw ci kër gi da nga kaa war a uuf tette ko même bu fekkee dafa yor ay jikko yu safaan yoo xamante ne si nit du ko yor ay jikko yu bon yoo xamante ne si lu ñu war a seppi la yow sa devoir mooy nga nekk njëkkee toogal nga defaraat ko waaye léegi da ngay gis njëkkee yoo xamante ni si saa bu seen jabaru càmmiñ juumee lu toll ni tarfatal ay ni ñu commencé fii ngay gis njëkke loo xamante ni si day taxaw di dagg saaga ndey ki nga xamante ni si moom moo di jabaru càmmiñam te waru ko def fii ngay gisee njëkkee loo xam ne day jàpp jabaru càmmiñam di dóor te waru ko def mu boole ko ak yeneen xeetu njëkkee ñoo xamante ni ñoom duñu dóor duñu saaga waaye la ñuy génnee seeni làmmiñ ci yàq moo raw fuuf la ñuy sol seeni dàll dem di wëri maama ni ñu yàq sëy ñoo raw fuuf ndax am na ñoo xam ne dañoo baaxoo wax wax ju bon am na ñoo xam ne dañoo baaxoo saaga ndey bu ñu la saagaa ndey rek nga pare ci àdduna waaye am na ñoo xamante ni nii ay miikar lañ ndax nag waxoon naa ko ci euh, ci vid ci euh, vidéo yële passé ci jeegu miikar yi waaye dafa mel ni nag tey njëkke yi dañoo dem àbb jeeg ju safaanu jooju seeni jikko yi ñu leen limaloon keroog ñoom njëkke yi jël ko àbb ko ñëw poose ko ci seen bopp di ko defanteeg seen jabaru càmmiñ yi ndax nag am na jigéen ñoo xamante ni si wax dëgg yàlla bëgg nañu sëy de am na jigéen ñoo xamante ni si jant bañ leen muuree la ñu ñaanoon yàlla ne dañuy jënd bàmmeel kër ga ñuy sëy waaye mënuñu ko ndax mayu mayuñu leen ko mayuñu leen fan la ñu mën a euh, taxawee ba mën a sëy sëy bu baax ndax lan wax ju bëri histoire bu bëri bugguma la te leen lépp nag li koy indi mooy sëy boo xamante ni si ay famille ku góor ki dañ ci ñàkk d'accord boo ca duggee lu mel nii rek la lay jural ndax nag euh, li ñuy wax rek mooy que ni xale jigéen ñi euh, képp ku ci xëyati di ñaan jëkkër bul ne na ma yàlla may jëkkër kase ñaanal yàlla mu bëgg la ñaanal yàlla it famille jëkkër ba nga xamante ne si ñoom ngay fekk ji ñu nga ñaan yàlla ñoom ñu bëgg la gis nga buñ la bëggul xeetu mbugal yëpp dañ la koy def tey jéeg a ngi fi ñu mayee ko ren bu dewee nii yaayam du bëgg sax mu teg tànk ca koñ ma ndax bañ koy mayee dafa jekkoon mel nu ko neex waaye ab sax wala du ko egg sax bu dell dellusiwaatee ca biir koñ boobu yàlla xam na ni nañ koy xoolee tax yaayam day am kersa sax pour jeeg boobu doomam jooju di jóge kër ga muy sëy di ñëwaat di leen seet si si koñ ba ndax futi ga muy futi melokaan wa muy mel te kenn tegu ko ko ku dul ay njëkke yu lay fitnaan ndax des fois nag ngay sëy ci kër goo xamante ni si njëkke yi dañuy bëri lool te sakkanoon équipe la ñuy def nekk ca biir kër ga di la indil ay kalan su fekkee ni da nga fa yor ay wujju peccor ga ñoo ngay commencé dugalante wujju peccor ga yi ña ngay jaxase ña ngay ruutale tasaare kër yi kër kër góor ñu bari ñu tàkk fi mu toll ni seen sœur yi ñoo ko taal ba pare ñoom ñu ne patt ndax góor li muy xam ci kër bariwul de ndax góor amul jot boobu su xëyee day dem liggéeyi ma ngay uti dépense bu mu war a joxe suba ngir ay njabootam lekk jigéen moo am jot boobu bu sa càmmiñ xëyee liggéey nga jàpp jabaram di ko mbugal te am na njëkke yoo xamante nag ay njëkke miikar la yu bon sax la ndax nag yow sa jabaru càmmiñ balaa nga kaa mën a def lu ko métti jëkkëram xëy dem liggéey balee nag moom ngeen mbugal ko yenn yendoo ko mbugal a gaaruwaale ko wax jëf ju ñaaw ak salte ju ne ngeen déggaleeku ko su jëkkëram wàccee ngeen mel ni mburoog soow ak moom loolu yan genre jikko la kon kay loolu boo ko gisee war a xam ne kon loolu sikk googu ci njëkk yi la nekk ndax bu dee bu la sa càmmiñ wanee ginnaaw nga def nga ñaawal bu sa càmmiñ teewee nga rafetal yooyu yooyu du jikkoy dara yooyu yëfu hypocrite dëgg la te xale jigéen yu bari ñu ngi koy métitlu ndax am na ko ma ci musa wax ne ma eh, lobe ma ni ko naa mi ne ma man de sama goro man màgget la de waaye ni muy màgget yépp moo gën a garaaw du dox du dem de waaye làmmiñ bee gën a garaaw nee na ma galaas lay jaay su fi sama jëkkër nekk sax damay jënd galaas waaye bu fi sama jëkkër nekkul xëy liggéeyi su ma ko ne jaay ma galaas mère bi day bañ bu ko defee ma dem jënd ji feneen waaye nee na ma su ma jënd jee feneen bu jëkkër ji di wàcc mu woo ko ne kaay yaa ngi sa jabar gi bon bi may wax ci moom daf maa bañ a bañ a bañ ba nga xamante ni eh, glace bi may jaay da ko fee teggi dem di jëndi feneen glace xam ngeen loolu rafetul su nekkoon góor goo xamante ni si la benn nopp la day dugg eh, attaqué jabaram dóor ko wala mu def ko neneen nu dul noonu mais bi bi ndaw si di jënd glace bu dafa fekk seede moo tax am na ko fa nekkoon bi jëkkër ji ñëwee daf ko laajee dal mu ne ko diw mooy sama seede demal nga laaj ko bi jëkkër ji demee foofu nee na daf ko ni kii sama yaay dafa ni kii dafa teggi jënd glace fa ndaw si da ko ni dara amu ci nga baal ma nag sa yaay la mais dara amu ci ndax bi mu koy laaj nga xam nga glace sa yaay moo ne ko amoo glace xam nga xeet yooyu nit du ko yor ci biir kër te mag yi tamit ñoom ñoo war di defar gis nga sa goro bu mu sa doom wala mu sa doom bu jigéen ba tax yow miy mag nga war a wax dëgg nga di ko ci àndale ndax xale yu jigéen njëkkee li ñuy def nii lu ci bëri ci seen kanamu yaay yi lañ koy def ndax seen yaay yi dañ leen a bëgg bëgg bëgg ba ñoom jàpp nañ ne ñoom ñi ñu jur rek ñooy doom doomu jàmbur bi ñëw si biir kër gi kooku nekkul doom pour la xeetu métital bu nekk nga teg ko jigéen xeetu jafe-jafe bu nekk nga teg ko ko ci biir sëyam te njëkkee kase la nag li ñuy naan jeg ji dañoo mën a nettali na jeeg ji di tëj seen gémmiñ yi bàyyi di nettali seen yi di leen jaxaseeg seen seen seen i njëkke yi ñoo dàq nettali fuuf ñoo dàq nettali ba pare te dëgguwuñu dañoo foo bari na njëkke lu lay reetaanal di la kafal te fekk mi ngi lay gasal kàmb goo xam ne boo fay yërnu dina pëtt ci biir ndax am na ci njëkke yoo xam ne ay saay-saay lañ ji koy xalum ndéef la ñu yore saa yu soo yaakaaree ni lii doom la nax nga sa bu boo ci rut sa loxo di màtt sa loxo di wiccax xale yu bari nag dañ leen di piège yu yu demee nii te seeni njëkke yi ñoom ñooy dox yu ñàkk fayda yooyu waxatuma laan ñeneen nag gàddu seen tànk yi sëriñoo sëriñ ñu dem fa yow mun ngaa sëyoo sëyaanoo amoo far bu la nopp amoo lenn nga jàpp sa frère sa càmmiñ yóbbu ci sëriñ yeew koo yeewa yeewa yeew ba amalul njëriñ jabaram du defal jabaram dara yow jabaram bu takkee pattu or nga ne lu tax mu takk ko bu solee voile benn voile rek nga ni lu tax mu ko koy jox te man amuma ko njëkke yu bari dañuy diiranteeg mbagg seen jabaru càmmiñ yi njëkke yu bari dañoo teg bët seen jabaru càmmiñ yi ñoom yàpp nañ ne waru seen càmmiñ waru ta defaral jabaram dara pour lan jabar ku ko takk jëlee ku kër ndeyam ak baayam danga koy defal kon yow mii njëkke li su fekkee amoo jëkkër te amoo ku la defal demal nga uti ji liggéey liggéey bi may wax ne dem leen ngeen uti ji liggéey ngeen bañ moo tax chaque jour saa su ngeen xëyee di gis lu leneen naqari ci seeni jabari càmmiñ te du ngeen ko mën a faj ndax nag dafa am góor ñoo xam ne am nañ fulla am na góor ñoo xam ne nii dégluwuñu waxu njëkki dégluwaanuñu waxu njëkki ndax ñoo gën a xam seen seen rakk yooyu wala seen mag yooyu bu ñu leen toppee dinañ leen yàgg di leen konteel ay jabar te ci ñoom lay jóge ci ñoom lay jóge moo nag eh, ku fi takk doomu jàmbur te amuloo fulla amuloo fayda xamoo nag nga koy téewee jël nopp bu baax bi jox ko say fami ba mu ëpp te lañ lay wax ca moom lépp dara nekku ca dëgg tey bëri na jeeg joo xam ne ñu ngi muutuwaale loo xamante ni si kenn xamul nu mu toll jeeg joo xamante ni si tey ndeysaan da leen di gis ñu nekk ci kër di kër ci kër ci di liggéey di def lu ne waaye da ngay gis njëkkeelu seytaane féministe loo xamante ni si day fexe di jël jëkkëram di ko di jël càmmiñam di ko màkkuroo ak keneen ka ca biir kër ga di liggéey ñu jàppee ko fa mbaam jàppee ko fa dof loolu pour lan la te yow dof ba ngeen koy jàppe moo leen di xëy di liggéeyal moo leen xëy di leen baleel moo leen di xëy di leen raxasal moo leen di xëy di leen toggal jërëjëf bu mat sax amu ko bari na ci njëkk yoo xam ne nekk ci biir kër yow xëyoo wàccoo say euh, iññaane nga sax sa jabaru càmmiñ jóge marché nga ni ko in ma waasal la jën mbaa indi tey ma togg togg bi balaa maa dina ñuy jël benn wax bi rek foo ni euh, jabaru càmmiñ moom moo war a def lépp ci kër gi gis ngeen kër jàppalante la kër dañuy jàppalante waaye nag bu fekkee ni yow da jàpp ne euh, kii mooy sëy rek mooy mbaamu kër gi moo war a togg kii mooy sëy rek mooy mbaamu kër gi mooy dofu kër gi moo war a bale yow njëkke boo xëyee tegale say tànk ak say loxo yow daal na ndékki li pare nga ñëw ndékki na añ bi pare ñu woowi ji la mbaa nga gàddu surtout njëkke xale yu ndaw yi nag gàddu sa tànk sangu ba set jàppale wa sa jabaru càmmiñ dara ca biir kër ga sangu ba set jël sa tànk ndayale ko tali bi ñaari fan ñett foo dem ñu lay woowee téesante parce que la nga war a def seen kër la nga war a jàppale sa jabaru càmmiñ da nga faa wàcc teg ko mbaam teg ko dof jéeg ju bari fi mu toll nii dof lañu gën a ndiroog ka nit jéeg ju bari bari na ci jéeg joo xam ne seen jëkkër yi suñu wàccee seen xol yi day toñ-toñ yi ndax lan seen jabar yi duñu ñu tala sangu duñu ñu tala def dara ndax nag dañuy yendoon nekk ci liggéey bi suba ba ngoon jot nekk ci liggéeyu kër gi suba ba ngoon jot xam nga dafa am ñoo xam ne dañu soxor am na famille yoo xam ne billaahi bis bu la yàlla nattoo ba nga dugg ci ñoom ne da ngay sëy bu yeboo nga xam ne sa buntu toroxtaange taxaw na ndax dafa am fami yoo xam ne dañu iñaan am famille yoo xam ne dañu soxor ñoom bëgguñu kenn des fois nit sëy suñu naan kii du sama mbokk ak fexe ba ruutale mbokk indi ci biir diwu jële tasaare kër yi ba mu ne tas tey bari na fi wujj yoo xamante ni si mënuñoo déggoo bari na ci wujj yoo xamante ni si dañuy màttante defante lu nekk di liggéeyante te benn seytaane duggul seen diggante seen njëkke yi ñooy ruutale ndax ñooy ñëw ci kii nettali ko lii ngir ut luñ fa am buñ buñ fa jógee demaat ca kee nettali ko sa wujju bi lii sa wujju bi lii bu ko defee koo ko am lu mu ko jox mu yagar yagar ñëw toog waaye ñoom ñëpp di ko jox kenn ku ci dem ba amatoo loo koy jox jàppal ni day féete ca keneen kay continuer di ko jox yow ma ko dul jox nag danañ la xarab danañ la wax musiba bu ne te loolu duralu njëkke loolu duralu njëkke parce que xaaruñu njëkke ci loolu njëkke dangay dégg sa kër càmmiñ mi ngi tàkk nga dem sotti fa ndox mu sedd dégg na sa càmmiñ mi ngi joteeg jabaram wala sa jabara ngay génne bagage ya di dem di ñibbi di tas nga daw kar ko ca buntu kër ga demoo fenn duggal eh gis ngeen nag eh, fii amul ku fi amul jikko ku nekk rek am nga jikko moo xam nga wane ko nit ñi gis ko moo xam nga ñàkk ko wane nit ñi gis ko mais yow mi njëkke bi di def loolu sa yaa gën a xam ne am nga jikko ndax yaa ngi noon di ruube sa kër càmmiñ di ko tasaare kon nit ku nekk bu ñëwee ci yow da koy jàppee eh, eh, sa jikko soo ko jàppee sa jikko rek da ngay da ngay mën a naxanteeg moom dindi ay xeetu defante fee dindi ay xeetu gaaruwaale fee tey bari na jeeg yoo xam ne ñu dem xew dajeeg seen njëkkee benn yoon ndax ña ngi fay xaar gaaruwaale ña ngi fay xaar ay clan loo sol ñu saboote la lu mu sol ñu ne xoolal ni mu mel xoolal ni mu jeexee xoolal ni mu futee bono ko tax a mel ni bono ko tax a mel ni te fekk dara du ci dëgg la ngeen ko chargé ak problème ya nekk ca boppam moo tax xam nga sax nit mun na ñëw ci kër yore liggéeyu kër geeg mën na say si kër yoree liggéey mais may leen ko jàmm may ko salaam wax ju ñaaw day gaañ doomu aadama am na ñoo xamante ne si ay gor lañ yoo xamante ne saa boo leen duutee baat bu ñaaw wala nga xas leen ñàkk nga leen ndax dañ koy def ci seen bopp waaye soo dajee eh, eh, jeeg ju mel ni lobe ñàkku jom yooyu nga koy wax dala koy delloo dong te dara du ko du ko ci saf nag fii ngay dégg eh, jabar joo xam ne ne jàpp na njëkkeem dóor noonu la njëkke bu yemul sa place noonu rek la la xale yi di def ndax nag dañoo war a xam ne sëyu maam ya sëyeetuñ ko de ndax bu fekkoon ne la maam ya doon def lépp ñun moom la ñuy def kon problème du am mais la maam ya doon def dañ ko fay teggi di def ñun lu ñu neex kon man euh, euh, jabar dóor njëkke du ma bett njëkke dóor jabar du ma bett parce que ci génération bi ñu nekk la te ci jamono bii ñu toll la kon kenn ku ci nekk rek da ngay jéem a maslaa ak sa morom àdduna yàggul te bañ ak làmmiñ ñoom ñoo dëkk gis nga koo dëkkalul ci biir kër doo joteeg moom ñëw bi mu ñëw seen kër moo tax ngeen laale amaana yow sa jabaru càmmiñ bi ngay jotal tey su toogoon këram yaa ngi toog sa kër ba mu sëy siwul musu leen a jote mais mu sëy si ngeen jote problème du ñàkk ci kër kër yépp am problème amul kër gu amul problème moo xam kay sa problème danga koy génne di waxee wala nga jël sa problème euh, euh, dëxañ ko ci sa biir toogaaleeg moom waaye ku la ni awuma problème wala sama kër amul problème nee ko unx rek te bàyyi ko te xam ne moom day jéem a suturaal boppam mais ñëpp xam nañ ni mu demee ah mais bari na njëkk yoo xamante ne si li xew ci biir kër gi yëpp génnee nañu ko lépp lu ñu xamal seen jeeg génnee nañ ko te xamoon yow jeeg bi ngay weer boo ko weeree sa càmmiñ nga weer soo ko xasloo sa càmmiñ nga xaslu ndax sa càmmiñ moo takk doomu jàmbur indi ko ci biir kër gi am na nu muy mel di ko futee nga di ko xas naan ko xolal ni mu mel ak xayee deeg nangam ak nàngam sa càmmiñ boobu eh, nga war a waxal mais gis nga lenn li xel moo koy mottali njëkkee yi dee waxtaan ak seen jabaru seen jabaru càmmiñ yi bàyyi leen seen jabar càmmiñ yi ngeen teg bët ay jëkkëram nda koy defal li par force góor ñi ku ci takk sa jabar demal nga defal ko ku nekk la ngay defal sa jabar ak la muy defal yaayam ak yow njëkkee li la mu lay defal du doon benn du kenn ku nekk dangaa am part ci ci cër ci ku góor kon la nga ak ku góor ki doxal ko sa jabar it la mu séq ak góor gi mu doxal ko sa yaay it noonu su ko defee kër yi day daal di neex waaye nag bu ñu bëggee nag lu ne ñu lijjanti ko lu ne ñu lumbëj ko loolu moom du neex te du mus a neex kon nag eh, di leen jox eh, dig daje ba beneen rek incha allah ñu daal di ñëwaat xanaa nag eh, di dem ba fële rek jàmm gën si kàmm mbaaw di di wax di jaajëfal nag tailleur bi nga xamante ni sama moom a ñëwal di atelier tudd nag kaay kaay xool couture nekk fële ci jàmm gën si kàmm mbaaw numéro am nekk 78 281 68 82 mooy numéro am am na yu dàq yi yeneen ak loo bëgg rek ma nga foofulee ca jàmm gën si kàmm